fondamentalement carrément exactement légalement absolument cordialement honorablement yéen nag Walfadjri ñëw ngeen fii nga xam ne mooy QG bi fii nag fi la fi la ñu dal fii mooy base bi ah, ci ñetti point la benn bi fële la dortoir la am na beneen dortoir mais fii mooy quartier général bi suñu xëyee dañuy dem marché ndugg man bi ma yeewoo maa jot a dem tey par néeg lañ ko defan ah. groupe bu nekk jigéen ñi quatre chambres la ci jigéen ñi non cinq chambres la ci jigéen ñi ah, chaque jour am na chambre buy aye tey nag waa HLM yi ñoo aye gis ngeen ko ndugg maa ngi nii dañoo ndugg maafe lañ war a togg tey ndambe bi pour reeru suba la mais reer bi tey sombi la ñuy reere incha allah ndax yi la gis ngeen ñànkatang bi lañ nekk di togg yi problème mu moyen la ñu am dañ koy jéem a gérer rek à notre manière Euh, dinañ leen woon daal ni ñu dëkkee ni ñu dëkkee mu ngi nii bëgg nañ vraiment sénégalais yi ak euh, monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall mu gën ñoo dimbale ndax ay doomu sénégalais lañ te ñu ngi fi nag di di di di di souffrir bu baax a baax a baax et di demander ki nga xam ne moo di ministre de sports di Lat Diop ñun ñu bokk ci njabootam ñu ngi koy ñaan lillaay war a soli mu geestu ñu boole ñu ci yàlla rek tax ñu ngi dund fii dund bu méttee métti ndax ginnaaw yàlla bi ñu remercier ki nga xam ne moo di Sophie euh, Sophie Diallo remercier ki nga xam ne le ministre des transports Mouhamadou Mansour fay mi nga xam ne tey moo war a lii lépp Mansour fay boo leen xoolee fii ñu dëkk nii mënaguñu koo fay fi ñu dëkk nii mënaguñu koo fay parce que amuñu luñ ko fayee beneen appartement bi dañoo obligé démb lañ jënd ay genre bassin ci la ñuy fanaan fii lañ jël jox ko jigéen ñi parce que duñu ànd ak suñu ay yaay suñu ay jigéen ba noppi di leen teg ci condition yele condition yee nag on est ñu jox leen ko góor ñi mais ñoo xam ne yoonu suuf lañ jël jógee Sénégal ndax seen réew bo yegg si fii après di tëdd presque ci suuf ngeen xam ne kon loolu metti na bëgg seen réew rek moo leen ko jaral kon loolu ñu ngi ñaanaat yàlla état bi mu dimbale ñu ci yàlla rek tax suñu ministre de tutelle monsieur Lat Diop ñu ngi koy ñaanal yàlla li ay moroomam jëloon yal na ko ko yàlla defal mu jël coupe bi loolu rek moo ñu ñor ñun ñëwuñu fi pour problème ñëwuñu fi pour histoire ñëwuñu fi pour dara suñu senegal rek moo ñu ñor fu senegal mos dem dañ ko faa topp kon loolu dong dong dong moo ñu tax ñu jël ay yoonu suuf loolu moo tax ñu mën a dem di fanaan foo xame ne ay matelas yu ndaw la ñuy lal loolu lépp suñu réew moo ñu ko jaral ñu ngi nii billet stade amuñu ko kon match bi boo moytuwul fii ci quartier général bi fii la ñuy toog mën a def suñu fan zone pour seetaan ko fi kon nag loolu damay demander encore une fois ñu def plus de quatre mille kilomètres ñëw pour am accès ci stade problème la pour lekk problème la ñun ñooy koloo koloo difficilement on vit suñu mënoon a dem ba gis fii nag député bu fi ne dinañ ko dem wax ko pour mu ñëw xool doomu sénégalais yi fii nga xam ne seen réew moo leen jaral ñu def mille kilomètres ñëw ba fii lan la ñuy vivre affaire bi nekkul man nekkul faal affaire bi c'est tout un peuple ay nit la ñoo xam ne ñëpp ci seen bopp ku ci nekk dafa am ngëm-ngëm boo am pour sa réew mu jaral la ko ñu war a bokk ci biir Coupe d'Afrique bi ñëw fi pour ànd ak sénégale yi pour supporter Lions yi ñu gañe loolu kese moo ñu fi andi andi wuñu problème fii defuñu fi problème te bañ nañ ko ba keroog bi ñu demee ci stade bi li ñu yor li ñu doole bi ñu am bi demee wone nañ ko fañ ko war a wone tëgg nañ fecc nañ def nañ ambiance gagné nañ match bi te defe naa ne loolu dong moo tax sénégalais yi jóg pour ñëw fi mais li ñuy wax rek mooy ki nga xam ne mooy suñu ministre de tutelle muy monsieur Lat Diop ñu ngi koy ñaan lillaay wa rasool yi ñun ay doomam lañ ay jerbaatam lañ ay léppam lañu bum ñu boddi ndax bu léegi mosta wax ak kenn ci ñun man mii di wax ak yow mësta wax ak man en face à face ci problème bii kon bul déglu benn côté rek nga féete ca côté booba ba mu jaral la yow nga boddi say doom ñun ay doomam lañ léppam lañu nañu dimbale ngir yàlla mu ñëw xam ne ay doomam ñoo fi nekk di tëdd ci suuf ay doomam ñoo fi lekk bu ñu añee dañuy cotiser ku nekk 1000 francs pour ñu jënd lu ñu reere vraiment loolu ba ñu dem ba nga xam ne am na autorité ivoirienne bu ñëw fii naan dina fexe nu ma leen jëndale benn nag pour dimbale leen vraiment te ñun ñu am réew ñu bokk ci réew mi di defal réew mi lu ne nañ ñu gestu quoi vraiment nañ ñu gestu Tá waaw loolu la demee nag dafa dafa malade sax. waaw loolu daa malade. waaw jugal jugal jugal. monsieur le ministre la Diop na si jàpp. waaw ay doomu réewam ñoo fi ne. comme ni ko Paco waxee rek. ñun Sénégal rek moo ñu ñor Sénégal rek moo ñu intéressé waaw drapeau bi rek moo ñu ñor drapeau bi moo ñu intéressé tey ñi fi ñëw ñi yëpp ay doomu sénégalais lañ kon monsieur le ministre encore une fois comme ni ko Paco waxee rek ñun say doomu réew lañ te dañoo ñëw rek pour supporter Sénégal Sénégal rek moo ñu ñor. waaw ñëwal nga jàpp si say doomu réew a ngi fii si Côte d'Ivoire pour encourager Lions yi pour dem ba final incha allah rabi kon cuxu looy maye foofu. waa dama xam nga lu yëngu lu ne li ko yëngal këpp doole. mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. ñun mënuñ ñoo génne ci Sénégal ñun ay sénégalais lañu ñun ci réew mi lañ bokk sacrifice yi ñu def ba si fii métti na. ñoo yor suñu bopp ñu ngi débrouillé bu nu taqalee ci ndékki li añ bi dañ koy taqale reer bi waxi nopp fu ñu toll nii reer xamaguñu lu ñuy def parce que amu fi monsieur le ministre Lat Diop ñu ngi lay ñaanaat encore une fois nga dimbali say doomu réew ndax ci yow lanu ñu bokk xam nañ ni nit ku baax nga nit ku gore nga nit ku tabe nga li ñu lay ñaan mooy nga dimbali say doomu réew te yàlla tax ndax ci yow la bokk waaw lii nag boo ko xoolee xam ne lii dafa métti dëgg fa yàlla gars yi seen xool yi tooy na tooy goo xamante ni amatuñ dara lu ñu mën a wax wax dëgg fa yàlla waaw lii dafa dafa dafa dafa métti dafa métti waaw ñu ngi la koy ñaanaat encore une fois Lat Diop monsieur le ministre nga dimbali say doom loo mën ci dimbali ñu nga dimbali parce que yow rek lañ fi am fii yow rek lañ fi am wax dëgg fa yàlla ñun buñ fi ñëwee ba léegi amoon nañ yaakaar ne di nga fi ñëw te xam nañ ni di nga fi ñëw te lii boo ko déggee di nga fi ñëw jërëjëf